برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلفيد تيجان جخن نيوينان تيشاتيان يان مسام باي بوتو اباس مسام دوم بوتو اباس لول موت عبد عباس عباس سر الله kooku mooy mbóotu yàlla bi fa saxnul xaqi saxnu mooy mbiru xaqu bi moom la ramsul kawnu bi ki muy isaara mooy Cheikh ja nature bi nature bi nature bii ñu nekk tey nga naan asamaan seeg jënt beeg guddi bëccëg ak nanga ma nanga ma ne mooy ramsul Cheikh Tidiane ah! kawnu bi ki muy isaara mooy Cheikh Tidiane ndaxte boo jàpp ca benn wéyu mu ne xaqiqatu siril kaw ni saani wa kawi ni waxaat ba afra farla mu sanni kon Cheikh Tidiane mooy isaar kaw ni kaw ni mu ngi isaari Cheikh Abdallah kaw ni bi am nii lii am nii nett bi bii lii kan moo mën a xam nii moo tax nit ñi bu ñu xamoon Cheikh Tidiane xaraamal nañ dem ci gën bu Cheikh Tidiane te Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dama dégg mu ne surtout mu ne awali na li Alxuraan waxoon waaw mu ne xaaj ba amoon bu ndaw ba ci yonent yi wala yu bu bëri ba neexee hmm. ci yonent yi hmm. Hmm. mu ne benn xaaj boobu benn xaaj man sama saa bii la loolu nag lu muy firi te ñaari xaaj amul ah am na ka ñaari xaaj am na xamul tam ñaari xaaj am ruux yi ñoo gën a bëri yaram yi moo tax ruux yëpp xaaj la yu tubale moom beneen ruux beneen yaram bi nag mooy yaram yi man maa leen moom loolu la wax ñaari xay la moo am ci àdduna ruu ak yaram kese fay nekk ruu yi nag xaaj lañ ci démb ku ne moom ñun dama tey nag ruu yi mujj yi yi mu xol yi mujj yi yaram yi mu moom mata bàyyi ne ko Cheikh Tidiane nit la koo xam ne bu ko ñëpp gisoon gis yàlla kenn du yàlla kenn du gis yàlla kenn du xam yàlla kenn mos yàlla lu ñuul te weet te nangu la Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane dafa bëggoon naa mooy kan. gis nga yéen daal aadama yàlla bi. mooy drapeau mooy drapeau bi. yàlla bi. keroog yàlla bind aadama la a bind. keroog ba yàlla bind aadama. waaw keroog yàlla gëj a bind ba léegi. aadama aadama boo yàlla bindee la pare ci mbind ma di répété rek nag. dëgg la répression di wàcc ba léegi nii surtout tey. moo tax ci ci ci ci yenn saa yi ci ci ci ci aay yi inna laahu malaikatu yusalluna ala nabi. Mm-hmm. yàlla ak malaaka ñoo jël ci yonent bi. aadama mm-hmm. na ma malaaka rek ci moom. Mm-hmm. loo tuddee aadama. loo tuddee aadama ba moom malaaka rek moo jël ci moom. ak loo tuddee yàlla ak malaaka ba ñoom ñoo jël ci yonent yàlla sa sa. ak ñaar la may seen farq. bu boobaa yàlla dafa jël benn mazhar ci mazharu ilaahi subhaanahu wa taala rek def ko aadama muy yaram yaram nag malaaka yi julli ci moom yaram moom malaaka yi waaw waaw aadama moom malaaka yi rek ñu julli ci moom waaye nag yàlla subhaanahu wa moom ci jëmmam ji xànd ak xaqaayatam yëpp mooy malaaka yi ñu ne cërib nekk yontal Muhammad maa la firip na ko yónni sama ñu dal ku gis bëgg si yónni bi yàlla yónni ngay xool ku gis malaaka yi yónni ngay xool malaaka moom bu ko xool nag yónni ngay xool gis malaaka yi may sang malaaka yëpp moo tax alhamdulilah faasi samawaati wal ard yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo xotti asamaan ak suuf jëlee malaaka te rusula puuj ay ñaati mas naa ñu nekk ñaari malaaka yoo xam ne dañeen am ay mbaggi naaw ñaari malaaka yi kan ak kan la yónni daal Muhammad ak Cheikh Tidiane maa ko wax ñaari malaaka yi mooy tal Muhammad ak Cheikh Tidiane. ñaar mm. yàlla jàngale. Mm. yooyu la moo tax nit bu deexee Munkar ak Nakiir ñoo ñëw ci moom. Mm. kii jege asamaan yow xotti asamaan kii di xotti si ñëw ci bi ne ko yee fii si borom maa rabb ko. ñaari malaaka yooyu taalibe Cheikh Ibrahim lañ. Mm-hmm. kenn ki mooy tal Muhammad kenn ki mooy Cheikh Tidiane. ku ñuy isam si xol bi bu ñëw xol bi lekk leen. bilaa sakk wala rëy bi. maanaam bilaa sakk wala moo tax. wasuwaasa bu amee ñett ñetti malaaka ñoom ñëpp ñun dama seetaan bàyyi la. wuru ñeent soo koy ci kalaama tey mooy bàyyi naa suy ma dibi insu yi yéen yéen sa fi xam ke may saw rek waaw ah, may saw may saw rek comme mu day doxal may saw lay nekk nit ñi duñ xam yàlla ba yomal a ak parce que fi ñu xam yàlla lañ weddi cool yi li mu bëri nii iñaan gee xoli tàng yi xoli di bax di sotteeku dëkk co dañoo xamagul li xew dafa fu yàlla nekk ñu weddi ko moo tax sax xol di dëkk lay sotti waaye daw yàlla xam foo jëm. Ah! daw yàlla xam foo jëm. ah door ci de. gis nga wala Njaay day wax ne bukki yi wéeri jaay ndaar yi. yàlla fu mu nekk ndaar yi. ku muy xaar bukki sàcc ba raw jërëjëf jërëjëf ñalaw. waaw waaye tëggu moo jafe. te yàlla mu ne ci alxuraan sa li gën a garaaw yàlla mu ngi ci rond point ba rond point. xam nga rond point. rond point boo demee ci rond point séedoo. rond-point moom benn cadre la nii mais tali bii tali bii tali bi tali bi yëpp fu ñu jaar rond-point nag mooy yàlla moom boo jegee asal ci yàlla ngay ñëw boo jógee nubbu ci yàlla ngay ñëw boo ci wilaayatu ci yàlla ngay ñëw boo ñu ci xilaafatu ci yàlla ngay ñëw parce que yàlla mën na wóor awolu wala aaxaru wala zahir wala mooy mooy mooy mooy ma nekk yàlla la bini mirsal kooku hmm. mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax nit tamit rond-point nit mooy nafs allah allahu akbar nit rond point mooy nafs suru fu jëm ci nafs ruu fu jëm ci nafs yaram mu jëm nafs xol fu jëm nafs kon ñu ngi santaale bu baax di gërëm suñu sang bu tedd bi di Cheikh Tidiane ñu ñëw réewam tey incha allah rabbi xam naa suñu suñu suba leen rek moo fi nekk comme ñun dañoo jógoon pour ziara suñu sëriñ Cheikh Tidiane d'abord Khalifa Cheikh Ibrahim ñaar moo mën am suba ñu dem directement ziara ji ko ñëwaat fii ci Fass wala ñu ziara fii rawul Cheikh yan suba door jàll ci moom ziara yi waaye lu ci mën a am daal ñaar ziara yi moom moo tax suba bu ci dooree baax na maanaam du ko ñëpp di leen ziara